Cedaco di David Yunus is intellectual. Mm. He's so intelligent. waaye ci saase ndeysaan ñëpp bañ noo bala xam waaye ñëpp mën nañu bëgg dama yow waaw mbir noonu demee waaye nag ndànk ndànk jàpp kolo ci ñaay ndànk ndànk ren ay sama taal bi đi.

siyaasaan yu nga xam ni yéen du ma tàggoog yéen saa su ne te ma gis seen doxin du ngeen nelaw guddi du ngeen nelaw bëccëg